Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Euh, lu waral pass bi Ziguinchor mu de 900 Bignona de 900 parce que même gouvernement bi ci là opposition amna. donc donc président bu Bignona état la andal. donc président bu est àndut ak état Mo waral même bu est en grève président bañ na grève. est-ce dégg bu baax looloo waral bi ñoo ne ak Ziguinchor bokkuñu président donc ñun ñu dem gréew ngir gasoil dafa seer am nañu droit yokk suñu paas ku demul gréew parce que pa euh, gasoil bi seerul kooku demul gréew kooku du yokk paasam donc li ma bëgg a client yi xam d'ailleurs de un paas bu Ziguinchor Bignona mosut a nekk 800 c'était 890 francs na clim ni ñi déglu bu baax ci loolu 890 moom la gouvernement bi taxawal paas bi léegi euh, ñun dañoo seet ni nit bu la joxee 1000 francs pour delloo ko ay wekkat ay 20 francs des métti moo tax ñu supprimer 90 yi ñu encaissé 800 est ce que may dëgg looloo waral lii léegi gasoil yokk nañu ko bu ñu yokkee gasoil lan la gouvernement bi wax dañoo yokk gasoil ba pare. ñu génnee xaalis pour financer transporteurs yi te pour chauffeurs yi bañ a yokk gasoil loolu mu munee nag transporteur mooy jënd gasoil wala chauffeur mooy jënd gasoil chauffeur mooy jënd gasoil yaa moom sa oto nga jox ma ko ma dawal yow ñu neexal la pour man ma bañ a yokk paas te yow demoo fenn demoo di ko man mi maa maay jënd sama gasoil donc moo waral grève bi am ñun ñu bañ ko. gasoil bi bu ñu ko yokkee gasoil am nañu droit yokk paas man paas bi nu ñu ko yokkee sax neexuma xam nga paas bi ñaata lañ ci yokk 10 francs paas bi 10 francs la ñu yokk andi ñu jël 10 francs dolli mu nekk 900 loolu il faut client yi xam loolu ku ko xamul bu ñu déggee noonu rek dañoo yokk 100 francs xamuñu ñoom seen intérêt la ñu topp bu dee client moom bu ko sa bu sañoon sax du ñu bu sañoon du ñu donc paas bi 10 francs la ñu ci yokk. loolu foo ngeen xamal ko population yi yokkuñu ci dara bu dee Bignona a Ziguinchor léegi kale kooku état la kooku yokkul kooku am na lu mu war a am ba pare ñun ñu amul dañuy yokk pot ñam tam ñu am woon fii boo boo yebbee da nga lay jox 5000 francs 5000 francs boo solee gasoil 4000 mën na la yóbbu aller retour soit 3500 yow nga am loo dese da ngay dëgg bon da ngay dëgg juuti mais léegi bu ñu bàyyee 800 yi. bu ñu bàyyee passe bi 800 boo solee même boo solee 5000 amuloo loo renforcer quelque fois nga paan gasoil man yàggul bi ma paane fii gasoil te chaque jour 5000 lay sol comprendre nga nit ñi nañu xam ni gasoil moo andi lii. Génération FM. the best radio.